yéen fi war ngeen am dans les dix mètres war mhm. ma def crise cardiaque en dans les cinq secondes. ñu jël en charge e je te dis le personnel sont là am na médecin diplômé yoo xam ne bi passé j'étais en manque de deux médecins j'ai fait une annonce imaginez ñaati ñaati pro ñaati dispo dem ñaati offre moi je fais la demande et des offres. Mhm. j'ai eu cent deux offres. de médecins qui me disent qu'ils ne font rien au Sénégal. ñooñu ko doon jëloon la contre le chômage la di leen dugal ci benn salle de réunion nii indiqué leen nu ñuy defee pansement tu sais qu'aux États-Unis c'est pas des les gens est-ce que vous le savez. Mmh. <laughs> c'est des c'est des, gens de niveau troisième. Mmh. maintenant pendant trois mois nii la ñuy defee pansement nii la ñuy joxe oxygène nii la ñuy yëkkatee koo xam ne amul tension nii la ñuy fermer perfusion ils sont partis. mais non bu dara amee urgence daanu balaa ngay kii ñu. ñoom ñu jël ils font les premiers soins. les Canadiens font la même chose le matin bu ñu yeewoo yow euh, docteur euh, groupe man dafa defoon stage ak ñoom sax pour voir un peu demal euh, avec le bii garé à la au au statut demal bii garé Ngor surtout en fait cette période. de mhm. de plage demal. waaw dans les c'est quoi au niveau des plages ce qui fait que avec la circulation actuellement vous avez vu. seen rue bi léegi pour wàcce fii hmm. dem Ngor c'est impossible c'est impossible <laughs> c'est impossible bu ñu la nga bëgg a fi fii pour dem Ngor Ouakam tu vas pas y arriver ouais. donc il faut que les euh, les soignants les secouristes soient positionnés mm -hmm. dans les endroits stratégiques mm -hmm. et li ñu jot ci ambulance yi <laughs> par année yéen a ngi gis doomu doomu ambulance yi ñu jox par an si si vous avez mm-hmm. vous avez entendu des dons bu ñëw <laughs> li mu lay jëkk may mooy ambulance. Mhm. alors que ambulance c'est comme un hélicoptère si le technicien qui doit le conduire <laughs> n'est pas la si l'assistant qui doit être là pour gérer le matériel le pire même on des ambulances qui arrivent xam nga lu ngay def dañuy dindi matériel parce que ça fait du bruit. Mhm. ban matériel. matériel bi nekkoon ci ambulance bi. ah matériel bi day def bruit. bon bouteille d'oxygène. waaw waaw waaw tappul wax day def oxygène am na benn brancard weñ. waaw ñu booyee bu ci nekk. oui ñoom dañ koy dindi teg ko fële. léegi après ambulance bi lay jar. <laughs> clando médical. oui mais ça devient des clando médical.